dina xaw a metti ci moom waaye mbégteeg bànneex la kon dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu fi di ay kilifa doore ci cheikh Mouhamadul Bachir Abdou Khadr di porte parole euh, xalif bi di nuyu soxna maam xari Mbàkke Murtala di nuyu sëy Mbass Poroxaan di nuyu sëñ Koso Muntaxa ak njabootu sëriñ bi yëpp ñi ak ñi di sant yàlla gannaaw bum ñu mayee ñu fekkee bésub xéewal yi ñuy dem may ñu tamit ñu ànd ci wérgu yaram ak tal ko ba mu oyofal suñu tànk yombalal ñu ko ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñu ma bëggoon a àndal ñu teew fii ci sa kanam Mbàkke di la ziara di wax suñu mbégte gu rëy rëy rëy gu ñu am ci gannaaw bi ñu fi ñuy fekk la fekk njaboot gi yëpp te di jublu ci bés boo xam ne avant mu doon jot laa waxoon premier ministre na xool ak yenn ministre yi nga xamante ne ñoom la seen loxo gën a dugg ci lii defar ci liy yombal ci liy màggal lépp li nga xamante ne ci bés bii lañu jublu rawatina ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ndax dafa tombé ren màggal ga nekkaat ci nawet ak ministre des transports ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ministre de du commerce ak euh, ministre yëpp nga xamante ne ministre de l'intérieur de l'urbanisme ak ñëpp ñi ma àndal daal ak ministre microfinance yëpp ma gën a sax yaatal délégation bi ba ñi nga xamante ne dañuy ñëwoon dem leen ne nañ fa delluwaat ndax demoon ngeen pour wax li ngeen li leen santoon fan ngeen ci em lan ngeen ci def ak naka ngeen di waajalee déwén incha allah rabbi ba jafe-jafe

mu may la wér gu yaram gu dëgër a dëgër a dëgër te may la gudd fan bu fi nga féete di gunge njaboot gi nga mën ko gunge fu sore sore sore sore lépp ànd ak ànd nag tawfeex incha allah rabbi tànk yi moo nekkoon li nga xamante ne waxoon naa su ñëwee naa la ko feddiliwaat ndax yàgg rek jaar naa fi doon la ko wax te niñ ko waxtaane lañ ko jëfee waxtaan ak ministre de l'hydraulique et de mu ne ma bu mu woyteeg yow ñëw ziare ci la wax na la suñu yéene yaatu gu ñu am ci régler problème mu ndox définitivement Touba ak régler problème mu assainissement définitivement Touba te sama mandat gii ma yàlla nattoo ci kaw Sénégal loolu mooy sama premier projet boo xamante ne baral naa ko bu fa bu fu a yem pour ñu mën ko gaaw a commencé ndax lii doon problème boo xam ne daf féete gannaaw te incha allah rabbi yaag am nañu nu yàqin ni dinañ ci am ndam bu soobee yàlla mu doon taw ak noppalu ci population Touba waaye yeneen population yi nga xamante ne projet bi nar leen traversé muy Thiès muy Mbour ak muy Dakar lépp nag mayaat ñu teewaat ko ay at yu bari te saa ñu fi ñëwee rek ñu am ñun ci suñu bopp mbég te def li nga xamante ne dina yombalal taalibe bu fi ñëw bés bi nga xamante ne kenn bëggu ko wuute ak foo mënte nekk biir réew mi ak bitim réew kon salaamaaleykum wa rahmatullah